lu waay wax ci ñun nag dañ lay bàyyi nga wax rek comme yiw comme safaan ku mën a muñ ci yow ñuy wax safaan war ngaa mën a muñ ci yow ñuy wax yiw rek wala ndéet ah te kenn mosuma dégg may tontuwante ci dara te kenn duma mos a dégg it nag may tontuwante ci dara te maa ngi ñaan képp ku fi nekk ak képp ku may seetaan Omar lii télévision la bu ëllëgee rapidement day jàll gis nga li leen nit ñi di def li leen nit ñi di defal nga koy muñe man dara naqari ma kon yéen bu leen dara naqari man daal lu waaye mën a gis ci réseaux sociaux yii mu dama ko wax jàngal ma faati ak salaatul faati ne yàlla dolli koo dimbale rek waaye bu ma kenn tontul audio sax audio audio bi gën a tuuti bu ma ko kenn tontul wala commentaire bu kenn commenté bu kenn def benn image di jéem a tontu wala di jéem a commenté boo gisee ku bind ay saaga sax xanaa leen ne boo mënta ñàkk a bind bu mënta ñàkk a bind bindal ko ne ko waay waa jile salaatul faatiha dégg bi soo mënul ñàkk bind ba mënoo ñàkk bind nga xol mu jeex bindal ko ca suuf ne ko saawaay lillahi wa rasuli faatiha salaatul faatiha wala sanga ko saa faatiha salaatu ala nabi xëy na mu bañ salaatul faati ba boo dee salaatul faati mu dolli saaga waaye da ko naan faati salaatu ala nabi ah ah mayuma la ko bul xuloo ndax man bul saaga wante ndax man bu tontu wante ndax man déedéet loola na xam naa la séeréer nga sama mbokk nga da ngay waaye loolu na bul xoolal ku lay waxati dégg ci man jógal dem xanaa du la daj du la dab dëgg la pes xanaa tooñ yeggul foofu nag yaa toog luy wax ci man loo mënta jégg yël bul te dem bul tontu benn baat yël bul dem balaa ngay dem nag jàngal faatee saatu faati yi ci yoon wi ne jox naa ko àddee yonent bi ñaanalee ko shérif jeex na lii laa sant ñëpp bu ma kenn tontul bu ma kenn saagaal bu ma kenn waxal dara man mu koy def la ma mën maa koy def wax naa leen ko fii ba tàyyi nit saaga na ma fi ci gàmmu gi la fanaan kat ki te man moo ma den te saaga na ma fi ndey saaga yoo xam ne <laughs> demoon naa ba jël résolution ne ku ko gis ci mbedd mi rek ndax lim ma daan def dafa mujj ëpp waaye keroog bi ma bi ma mujjee saaga dama jël trente mille francs def ko ci enveloppe jox ko Sayid Guèye mii ne ko àndal ak Atoumane Diol yóbbul ma ko ne ko suukaru kooram hmm. te ci bés boobu la ma saaga. Sayib Jóob mii laa ko jox ne ko àndal ak Atumaan Jóob nga yóbbul ma ko ba mu xam ne nag wax na ma dara ne ko rek suukaru kooram ci koor gi paase ci gàmm gi fi la fanaan te wóor na ne bu mu fanaanee ba bërset bu muy ñibbi balaa a yegg ci tali saaga na ma ndey man yi may man maa koy dund mais dérangé ma kon yéen bu mu leen dérangé bu mu leen dérangé man dara dérangé wu ma ci kaw suuf xam nga lu tax ku am El Hadj Abdoul Aziz am Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar loo ñàkkati. wallaay ndeysaan loo ñàkkati. loo ñàkkati ci kaw suuf man ñàkkuma dara. Mm-hmm. kon maa ngi maa ngi jéggal ñépp jéggal naa ñëpp. baal naa ñëpp. may ma rek Moustapha moom dof la Baye Fall la tuddee ma doom li ma leen di mën a wax mooy baal naa ñëpp yàgg naa ko wax ku ma mos tooñ baal naa la. ku ma tooñ ba noppi baal naa la ku ma tooñ te tooñe gooma baal naa la ku ma tooñ ba pare baal naa la bu ñu demee ba bés penc yàlla joxoñ ma ne leen ñii ñëpp tooñoon te gisoo leen yëgoo leen bañ lay tooñ baal naa leen topp ma kenn dara te billaahi li may wax bu dee du dëgg ci man yàlla bu may yeew nit nag di ko baal yàlla ne baaluma ko. bu nit ñi fàtti nag nit duñ ko baal ba noppi yàlla ne yow baal nga mu ne ah mu ne des na sama wàll man àqu yàlla kenn mënu ko baale. mu ngi mel ni àddina bii tey nit sàcc sa alal maanaam nit sàcc sa un million mbokk yu daje fay ko fekk police jot na ko yóbbu nga baal ko te delloo nañ un million yi police dañ koy garder partie civile sanction bi continuer sanction bi day continuer police dañ koy garder parce que partie civile dañ ci am wàll mhm. te yow fay na la ba pare mhm. Mhm. loolu ni mu amee ci àdduna noonu la amee ci yàlla foofu laa jeexalee Thierno Bachir mu ngi koy nettali keroog ci eh, ziyaara Wakaam bi ci biir néegam yaakaar naa am na ñu fa ñu ma fa toogaloon boobu Mansour ca la bokk mu ne Thierno Seydou Nourou ku ne xam ne Thierno Seydou Nourou léegi dafa ñeenti nit ñu nekkoon ndar sëñ Babacar. moom ñu bàyyiwuñ kenn. mu ne ñeenti Thierno Bachir ni ma leen xamee laa xamee ñeenti ñooñu mu ne ñeenti nit yu nekkoon ndar di yàq deru Thierno Seydou Nour mu ne ba Thierno Seydou Nour mënatu koy muñ mu dem ca Thierno Amadou mu jàngal Thierno Bachir ne ko ñeenti ñii nag danaa jëflanteeg ñoom ci yàlla ba xam ne Seydou am na moom ci yàlla ba. mu ne Thierno Amadou bàyyi ko ba mu wax ba pare mu ne ko ah mu Seydou man de yàlla moo bëgg a jaaxal yow day foogoon naa ne ëpp nga lii mu ne ko ndax yow ñii lañ la wax ndax dinañ wax waxuñu rasulullah lii ni toll mu ne ko ankaj mu ko danga gëm rasulullah mu ne ko déwgul saaxirul majnun mu ne ko ankaj ne ko déggut inna huwa eh, eh, eh, abtar déggu ko ba yàlla tontul ko mu ne ko ankay mu ne ko déggul kazaab mu ne ko mu ne Thierno Seydou ne ko ankay mu ne ko yow nag nga bëgg a jaar ci yoonu rasulullah te doo dégg loolu foo ko teg nee na ko baal ma yaay waaye wax ma lii foo ko teg mu ne patt patt ba yaay ne ko wax nga dëgg de baal naa leen mu ne xam nga lu ñu ko doon wër di waxal Thierno Seydou noonu dafa am ay jànqi tubaab yu muy àndal di baali. xoolal li nee na li Thierno Bachir moo ñu ko nettali mu ne waaye almartabatu laa tusaane mu ne fi Thierno Seydou Nour waxee ne baal na leen jógee fa di ñibbi liñ ko wax téléphone liñ ko ci yoon ko dee nañ ñoom ñëpp ci benn jotaay ci accident mu ne baal naa leen kon mu xew ñu ne ko baal na leen waaye yàlla moo wax ne baalu leen mm-hmm. ah waaw. loolu Thierno Seydou am na ci droit baal leen waaye la ci def nag wàllu ci waaye man bu dee sama aq lu ma waaye tooñ baal naa la lu ma waaye waxal ci kaw suuf lu mu métti baal naa la lu ma waaye def ci kaw suuf lu mu métti baal naa la ah ba mu des nag ku war a jàkkaarloog man pour dóor ma wala jàmm dinaa fayu nag wala ma défendre sama bopp bu dul loolu lu ma waaye mën a def rek may naa la ko. waaye nag ku xàcc loxoom bëgguma dóor dinaa paare ku yëkkati ngànnaay bëgguma jam dinaa fexe nu ma def ba mucc loolu moom euh, légitime défense lañ ko tudde waaye bu dul loolu lu ma waaye def rek baal naa la te loolu su ma mënee nàmm samay tànk dawit ma daw mhm. di ragal de waaye bañ la loroo tax